CASH ngén yónnee ko au 24 500 alors Tafa vous avez mën nañ ci vidéo bi ñu gagné leen nan ni def ba gagner 10 millions de francs CFA alors vous avez jël téléphone portable ngén dem nouveau message avez tapé cash

Ah, un téléviseur bu un téléviseur écran plat am également tablette tablette bi nga marché également un smartphone un smartphone qui vous permet qui vous permet de vous connecter à 4G am un décodeur OLED TFM euh, bi permet également euh, de euh, jeu Amène également un week-end de rêve un week-end en amoureux pour deux personnes dans un superbe hôtel 4 étoiles Pour euh, week-end de rêve amène également un billet d'avion Dakar Paris Dakar Gendem Paris ziar tour Eiffel comme nous. Euh, a bu crédit téléphone portable très rapidement nga nouveaux nouveau message cash au 24 500 euh, bu ngeen xoolee ci vidéo bi euh, fi ci sama euh, gauche gis ngeen ni Sobel mu ngi jox li nga xamantene moy mooy cadeau ki nga xamne dafa jouer won gagner jóge ñu jóge fële sa sa Thiès dal di jël ci li nga xamne moy téléviseur bu yaañ boobu téléviseur bi nag nee len leen Sobel lako ko doon jox fi ci plateau 4 chrono bu ngeen bëgg def ni mom jël len sen téléphone portable très rapidement parce qu'on est à une minute exactement du prochain tirage ngeen dal de dem nouveau message ngeen taper cash CASH ngeen yónnee ko au 24 500

D'Alou, daldi am dundu massage yu cash au 24 500 ngeen gagner le week-end de rêve mais le billet d'avion également il est là le billet d'avion Dakar Paris Dakar vous pouvez le gagner en envoyant cash CASH au 24 500 nous sommes arrivés donc au premier tirage de cette émission le tirage numéro 257 on regarde le résultat

Et enfin, le numéro 9, on regarde ensemble les 8 bons numéros sortis gagnants de ce tirage. Le 26, le 16, le 29, le 30, le 31, le 10, le 7 et enfin le numéro 9. Vous pouvez vérifier euh, sur votre téléphone portable si vous avez trouvé les 8 bons numéros. vous avez remporté, je vous dis, la très belle somme de 10 millions de francs CFA. Alors, Amadou Diop mon gagné le téléviseur écran plat bu Yanji bi euh, euh, ki nga xamante ne mooy euh, Pape Ada Koulum moom tam gagné na li nga xamante ne mooy décodeur OLED TFM da koy permettre mu jàpp ci kanam tuuti Mbayang Sow également gagné na billet d'avion Mbayang ñu ngi souhaiter bonne chance fële ca Paris alors Régis bu fekkee am nañ li nga xam ne mooy suñu joueur gagnant bi nga xam ne génn léegi ci suñu tirage au sort bi nañ ma ko paas léegi ma daal di defante yu baax ak moom allo allo allo waaw. salaamaaleykum sëñ bi na nga def. maa ngi nii rek ça va sant. tur bi naka la. Serigne Thiam. Serigne Thiam. Serigne Serigne. Serigne. Chérif. waaw d' accord alors Chérif euh, gis nga ni ma doon dugalee sama bul yi léegi dañuy procéder ci suñu tirage euh, boule blanche bi nag euh, Chérif bu fekkee dafa génn yaa xool li la neex ci table bi ma may la ko d' accord nga. waaw d' accord alors nga ñu dem ci suñu tirage yaa ngi jàkkaarloo sa télé.

loo yi nga xamante euh, donc mooy nee ma loo yi nga xamante euh, ngeen war a mën euh, bu ngeen xoolee numéro 30 bi mu ngi correspondre au téléviseur LED écran plat bu mag bi am ngeen li nga xamantene moy numéro 29 di correspondre au weekend de rêve té nee len leen shérif mi nga xamné ne bu numéro 16 le trouver le la génnee gagné na li nga xamné moy mooy 10 000 francs CFA ñu war ko ko alors maa fi nak lañu la yem ak yeen fi télévision future Média di leen bayyi ngeen sétane sen série wiri wiri ak jakarlo ak programme ñi ci topp ah, ñi nga xamné dañu bëgg continuer jouer ak man nañ ma feulé ci OLTFM dans quelques instants passez une très belle soirée à demain Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Rebonsoir, c'est pas Rémi, c'est Kia. Nous repartons sur OLT pour encore 5 32 minutes de jeu yéen nga xam da ngeen a bëgg a gagné euh, fukki million ci suñuy copar wala ngeen bëgg gagner cadeau yi Néna naa leen léegi ngeen di jël téléphone portable de nouveau message tapé cash yónnee ko au 24 500 parce que nous sommes à une minute exactement du prochain tirage ah, bu féké da ngeen a bëgg def ni ñooñu nga xamante dañu ñëw fi récupérer sen i lot maanaam gagné li nga xam moy téléviseur bi ah, da ngay daal di yónnee cash au 24 500 cash C h nga yónnee ko au 24 500 koy tapé comme niñ ko tapé ci suñu téléphone portable bi yónnee ko au 24 500 boko boo di nga boko a bokk ci tirage au sort bi amal euh, ci télévision Futur Média nga daal di mën a li nga xamné moy télévision wala nga mën a téléphone portable bi nga xamné ne mujjé mujjee génn wala nga daal di gagné li nga xamné moy décodeur OLTFM am nañ fi également li nga xamné moy week-end de rêve pour yeen ñi nga xamné da ngeen bëgg euh, noppal seen yaram ngeen dem fële ci hôtel 4 étoiles bobu en pension complète complète ak ah, du ngeen génnee dërëm ci sen poste waye tam ah, mën ngeen a week ah, billet d'avion Dakar Paris Dakar ngeen dem feulé ci Paris dal di jël ay photo yu nice sama patron way nako ko tukki tukki dal dafa bax kudul tukki do xam fu dëkk nexé bu ngeen amé possibilité gagner billet d'avion Dakar Paris Dakar da ngeen jouer à cash chrono tout de suite le résultat du tirage 258

et enfin le numéro 6 mon école numéro yu tirage numéro 258 le 33 le 10 le 2 le 12 voilà le 12 le 35 le 14 le 11 et enfin le numéro 6 euh, alors les mon du du numéro yu euh, gagnant de ce tirage du euh, numéro yoy nonou euh, ngén daal di euh, trouver yéen xam ci ordre bi ngén ko trouver wala ci désordre bi l'essentiel moy ngén am ñett juróom-ñetti numéro yu bax ku ko ci gagner gagner nga li nga xamné moy mooy millions de francs CFA manam fukki millions ci suñuy copar alors nee len nak fi beul 30 août inshallah képp ku yónnee CASHO 24 500 di nga mën a ci suñu tirage au sort bi ñuy amal tous les soirs euh, sur la télévision Future Media après journal télévisé bi euh, bu français bi bu jeexee rek dañuy daal di jàll ci suñu jeu cash chrono daal di amal tirage au sort boo xam ne ku ci sa numéro génn rek euh, da ngay daal di li nga en direct ak man daal procédé ci ñu tirage ah, bu fekkee nak bul euh, bi génn dafa tomber ak euh, li nga xam moy télévision bi ah, dañ lay wo fi ci plateau Cash Chrono dal di la jox sa télé ah, mën ngaa gagné tam tablette néna len tablette bi dañ ko saytu ci marché bi xol matériel bi nga xamantene mom mujjé mujjee génn matériel électroménager électronique bi mujjé génn mom la ñu dal daal di leen ko indil fi ci sen plateau Cash Chrono di leen ko gungé nak ba le 30 août du kotaay ko wax néna len euh yagatul 30 euh, août c'est dans très bientôt nous sommes à un mois du 30 août donc yónnee leen très rapidement cash au 24 500 ndax ngeen mën a li nga xam ne yi alors yéen ñi nga xamné yeen a ñuy door dab dañuy dem seetaanaat vidéo bi leen ne wan naka ngeen ni def ba daldi di euh, ci li nga xamné moy jeu bi nak ngeen mën gagner 10 millions de francs CFA wala tam ngeen mën a li nga xamné moy mooy euh, yu bax yi alors nañu dem xol légui naka lañuy def ba daldi jouer ci jeu bi di cash chrono

yi nekk fii yu baax yi da leen di gunge ba le 30 août gis ngeen tablet bi tablet bi nee naa leen ah, tablette bi bokk na ci tablette yi mujjee génn tablette bi dañ ko xool ci marché bi ah, di xool ah, yi nga xamante ne bu ngeen bu ngeen ko xoolee mooy tablette bi nga xamante ne moo mujjee génn ci markam tablette bi nee naa leen njëgam fi ñu toll mu ci ñaari million ñaari million <laughs> tablette bi nee naa leen ci ñaari million la toll donc yow mi nga xam ne da seetaan nga bëgg tablette bi

maa wax tablette bi mu ngi ci 2 millions donc yow mi nga xamantene euh, sa xel dafa nek ci tablette bi jëlal sa téléphone tas très rapidement nga daal di dem nouveau message Tape cash c a nga h ko au 24 500 euh, tirage bi nak mu ngi ni dans quelques secondes lay donne. Euh, meun nañu xol li nga xam moy résultat tirage numéro 259. le 19

et enfin le numéro 28 nous avons le numéro yu yi génn le 19 le 26 le 14 le 20 le 24 le 34 le 16 et enfin le numéro 28 alors bu ngeen le di numéro yu euh, yi 24 am nañ 14 alors euh, mën nañ dem xool euh, maa ko diggee woon léegi léegi suñu table des gains ndax ngeen mën a xam ñaata ngeen gagné euh, jël leen seen téléphone portable ñu xoolandoo bu fekkee ñetti numéro yu baax nga daal di jot léegi nii moom nga trouvé sa juróom-ñetti numéro yooyu day bokk ci tirage bale di ñëw te doo fay dara bu fekkee ñeent numéro yu baax nga daal di am gagné nga téeméeri dërëm bu fekkee juróomi numéro yu baax nga am gagné nga juróomi téeméer ah, juróom benn numéro yu baax nga trouvé nga daal di gagné fukki junni ci suñuy koppar ah, bu fekkee nak juróom ñaari numéro yu baax nga daal di gagné ah, daa trouvé gagné nga li nga xam ne mooy un million de francs CFA maanaam benn million ci suñuy koppar alors bu fekkee nak juróom ñetti numéro yu génn léegi léegi léegi wax naa leen ko te war ngeen ko miir moom ngeen jot ci seen téléphone portable yéen a nekk suñu heureux gagnant des 10 millions de francs CFA te dama koy fàttali saa su ne ni 10 millions

projet dal di bëgg def li nga xamné opération tabaski jënd ay xar pour jaayar 10 millions de francs CFA ngi ci table bi cash nga yónnee au 24 500 ah, bu féké da nga bëgg ubi atelier de couture parce que période bi nak dama leen di wax atelier yi fay dox ah, fo dem période bi sax la lay wax ni ah, fo dem dañu naan dafa fess euh, comme vous ñi nga euh, créer euh, atelier de couture c'est maintenant ou jamais jël leen un téléphone portable de nouveaux messages ngeen taper cash C A S H ngeen yónnee ko au 24 500 bu ngeen ko defee bu seen wërsëg nekkee ci fukki millions yi di ngeen ko gañe ngeen dem fële ca Chine wala yéen a xam seen local ubbi seen atelier daal di euh, baree bari euh, di ngeen dem sax bu fi ak déwén buñ la laajee foo toll ci atelier nga ne yaa ngi ci fukk ndax fukki millions mën nga ci def lu baree bare waaye pour ñi nga xamante tam ñi jaay tissu euh, bëgg nañ dem fële ca Mali Bamako daal di jënd ci gañi laay wala ñu bëgg a dem fële ca Dubaï daal jënd li nga xam ne mooy ay tissu superlage bu faire la nga xam ne dafa tang dañ koy soxla ci période bi ni donc da ngay dal di jël sa téléphone portable de bind cash CASH nga yónnee ko au 24 500 kon euh, ñun lañ yeen cash chrono la yeen la fi nekkal yeen nga xamné da ngeen bëgg doon multimillionnaire gagner fukki millions ci suñuy koppar yeen tax ñu dal di jël fukki millions tek ko fi jël sen téléphone portable dem nouveau message Tape cash

Assane neen ma taal ko dama ko taal du gis ngeen écran bi nu mu leeree euh, téléphone portable bi nag euh, ku ko bëgg euh, da ngay daal di jël sa téléphone nga dem nouveau message nga tapé cash c a s h nga yónnee ko au 24 500 cash cash nga yónnee ko au 24 500 boo ko defee di nga mën a gagné téléphone portable bi nee naa leen téléphone bi bokk na ci matériel bi mujjee génn ci wàllum téléphonie téléphone portable bi lépp luy téléphone portable moo la mën ndax dafa def deux ans boole ay ay fonctionnalité yoo xamante ne dégg nga maam benn téléphone rek antanu ko déedéet téléphone bi nag a ñaari puce lay jël ah, ba pare boo ko yoree da ngay am réseau foo mënti nekk ah, rawatina ko dugal ci puce bi nga xam ne mooy 4G alors euh, waaw <laughs> yooyu yëpp ci la bokk ah nee naa leen yéen ñi nga xamante ne da ngeen bëgg téléphone portable bi jël leen seen téléphone ngeen daal di jël nouveau message ngeen tapé cash CASH ngeen au 24 500 cash CASH ngeen au 24 euh, a li nga téléphone portable bi euh, fi toll ni toll tirage numéro 260 euh, très rapidement am encore temps message cash au 24500 a téléphone portable bi nga gën ci marché bi alors légui ñu suñu résultat tirage 260.

alors xoolaat leen li nga moi, ne mooy numéro yu baax yi génn léegi ci tirage numéro 260 muy 14 23 33 8 17, 31 28 30 boo xoolee juróom-ñetti numéro yi nag nee naa leen ko ci gagné ah, am nga li 10 millions de francs CFA Que trouvé juróom-ñetti numéro yooyu fukki junni fukki millions autant pour moi ci suñuy koppar moom ngay daal di ah, gagné li nga 10 millions de francs CFA xoolal bii na mu rafetee 10 millions de francs CFA. le jackpot ak ay daanaan fukki millions yi da nga koy xool sax sa bët yi daal di leer naññi nga dégg ko ah, sa nopp yi daal di leer naññi nee naa leen fukki million fukki millions ci suñu koppar ak ki nga xamante ne dafa toog bëgg a jënd oto yorul xaalis na jël téléphone portable daal di yéen dem nouveau message tapé cash C A S H mu yónnee ko au 24 500 cash. CASH bu yónnee ko au 24 500 amu daal di gagné li nga xam ne mooy fukki million ci suñuy koppar daal di def fële ca ca compagnie yi jaay oto yi baax yi daal di jënd li nga xamante ne mooy oto bi ko neex ndax 10 millions nee la da ngay da ciy am 4 4 daal di tiib say noonu ni ko sama gars di waxee

tous les soirs après le journal télévisé en français sur le TFM donc vous faites da nga tirage au sort Vous ba sa numéro de dañ lay woo nga en direct avec nous. vous avez di procéder ci li nga euh, tirage ak suñuy boule alors vous faites un boule bi devons dafa tombé boule numéro 29 nee boule numéro 29 fait correspondre à ça xàmmee ngeen lii billet d'avion fan ngeen jëm Paris

CASH ngir au 24 500 la langue, nga waroon jëlee jëndee billet d'avion pour dem tukkee euh, ya xam da ngay dem vacances wala ya xam da ngay dem def commerce mën nga koo am ci juróom fukk dong boo jëlee sa téléphone portable dem nouveau message tapé cash CASH nga yónnee ko au 24 500 nga bokk ci tirage au sort bi bu ci sa wërsëg nekkee nga daal di gagner li nga xam ne mooy billet d'avion bi dem fële ci Paris dal di mën def sa shopping euh, dégg naa euh, dëkk bi fim toll Euh, dem fa yombul ndax billet yi cher na donc billet yi dañ koy wécceeku juróom fukk donc yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a gagné billet d'avion bi jëla sa téléphone portable ni ma boo ko defee di nga mën a bi mais nee leen du billet d'avion rek am nañ nga xam ne mooy weekend de rêve euh, bu sax da ngeen ne am envie dem foofu di Saly euh, tëdd boobu noonu hôtel bi nga xamante ne nee naa leen sable ba fin na suuf sa suuf sa suuf sa daal neex na da ngay sa tànk mel ni kuy mel ni ku koy dugal ci ci ci ci lu nooy daal foofu rek la amee ci hôtel boobu boo demee beneen hôtel sax doo ko am kon euh, fële ca hôtel boobu boo fa demee euh, ñu daal di la jox li nga xamante ne mooy chambre bu climatisé nga ànd ki nga xamante ne bu la neexee mooy ki ngay bëgganteel yaa xam sa soxna la wala sa wala sa borom kër euh, nga dal di ànd ak moom fële ca Saly kon hôtel 4 étoiles boobu en pension complète nag di nga ndékki di nga añ di nga reer te ñattaram du génn ci sa poche

alors les mots premier numéro de Barkin les huit bons numéros sortis gagnants de ce tirage le 24 le 17 le 18 euh, le 6

alors dañuy ànd xool li nga xamante ne mooy publicité cash chrono pour yéen ñi nga xamante ne da ngeen ko bëgg xoolaat ñu ñëwaat ci kanam tuuti yëgale suñuy baax خلي بنقول ko ci 24 500. asalaamaaleykum yéen mbokk ñuy seetaan di nuyu rek ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di leen dalal ak jàmm ci seen po midi cash chrono tey nag ñu amoon mbëgte dalal kii di Amadou borom Thiès moo nga xam ne rek moo gagné tele bu yanj bi ñëwoon rek pour jël si ko Amadou ma lay laaj yow bañ la woowee ne la yaa gagné télé bi lan moo doon sa réaction.

ko ñaanal également mu bokk ci pari yi nga xamanteni ñom ñofi gëna bari di ñew ci ay tank pour di ñew di récupérer ci ay ndaw encore félicitations monsieur Diop kon ñu dal ko jox rek nga xamne moy télé bu mu gagné hein ah, borom ci télé bi dis na dé voilà kon ni lay démé sa su nekk gis ngeen Amadou Borom Thiès mo gagné télé bu yanj bi yeen nak su féké da ngeen bëgg rek def ni mom yonné leen seen SMS SMS bi lan la

cash au 24 500 abonnez-vous ko télévision bu alors nous sommes arrivés donc au tirage 250 262 on regarde le résultat le 27 le 1 le 2 le 3

alors les nag moo nekkoon numéro yu tirage numéro 262 euh, le 27 le 1 le 2 le 3 le 28 le 30 le 25 enfin le numéro 32 mais lii de gis ngeen 1 2 3 bi ni mu tegloo xam naa ne ku géntoon ku ne euh, di nga di jouer 1 2 3 alors euh, li nak mooy juróom euh, ñetti tirage ñetti tirage ni lañ leen tegal ni, ngeen xool numéro yi nga xam ne fay génn assez souvent à chaque tirage lu mel numéro 27 day ñëw di ñëwaat ci tirage yi donc mën ngeen a bàyyi xel ci loolu noonu astuce la waaye dama bëgg nak ñëwaat touti touti, ci li nga xamante ne mooy le week-end de rêve week bi nga xamante ne nee naa la man ci sama bopp soxla naa ko xam naa ne sama patron moo ko gën a soxla ñëpp ndax moom day liggéey ba 5 heures du matin euh, moom bu gañe woon week de rêve bi yaakaar naa ni euh, dina dem suñu patron ak waaw bu sañoon nag day dem mais malheureusement ku ku bëgg liggéey la alors dama leen wax yéen ñi ah yéen ñi nga xam ne da ngeen di ça vous arrive ngeen toog bëgg jël ay vacances ba ñu mel téléphone portable dem nouveau message ngeen tapé cash CASH ngeen yónnee ko au 24 500 bu ngeen ko defee nee naa leen di ngeen dem euh, gagné li nga xam ne mooy euh, week-end en amoureux pour deux personnes yéen yi nga xam ne dafa am ki ngeen bëgganteel wala ngeen daal di bëgg ki nga xam ne bëggal seen soxna euh, ça arrive ah y des jours comme ça ngeen xool seen soxna rek bëgg koo bëggal mais yenn saa ngeen làmb seen poche la ngeen ko bëgg a bëggalee du fa nekk mais ku ne ku ne xam na ni dem fële ca hôtel 4 étoiles boobu ànd ak ki nga xamante ne moom nga bëgg dafay daal di féexal xol Euh, ça sortir un peu de Dakar euh, dem nga respirer air pur pour faire ci petite côte bi euh, dara dakh ko yow mi nga da téléphone portable dal di nouveau message tapé cash C A S H au 24 500 cash

spa nag boo ko déggee mooy danga cay def xamaam def massage def yeneen ak yeneen yoo xamante dafa baax ci yaram ñun dañ koy négliger mais dafa baax ku ci am possibilité nag ñu daal di la ko wéccee ko juróom fukk dong te nee naa leen période euh, nii euh, ku fa dem dina xam ne hôtel la boo xam ne euh, boo amul li nga xam ne mooy ba 800 amaana doo sax def weekend ñun nag dañ leen koy proposé ci juróom fukk dong maanaam message boobu ngay yónnee pour mën a gagné hôtel bi pour a de rêve pour deux personnes il faut que leen vous dikkee da ngeen un téléphone portable pour ñi nga un euh, nouveau message nous tapé cash au 24 500 cash CASH ñu au 24 500 Vous avez ko un euh, gagné week-end en amoureux pour deux personnes te nee naa leen yéen ñi nga xamantene euh, mënu leen dem euh, mën ngeen ko may ki nga xam moy mooy seeni parents ñu dem fofu noppalu parce que nee geej dafa baax dëkk ci wetu geej dafa baax noy air pur sori sori euh, toute pollution bi et de temps en temps il faut faire plaisir aux parents jël may leen li nga xam moy un week-end pour deux personnes ñu dem fofu ci hôtel 4 étoiles bobu daal di noppal seen yaram baax a baax a baax nga xam ne bu la neexee toog sax euh, ci chambre daal di commander room service ñu indi leen seen petit déjeuner seen euh, ñu daal di noppalu bu baax a baax ku ne nag bu sañoon may ko sa papa mbaa nga may ko sa yaay kon yow mi nga xam ne yaa ngi may seetaan am si yéene bu rafet jël sa téléphone portable tenter sa chance jël cash CASH nga yónnee ko au 24 500 ah boo nga de rêve bi ah, faire plaisir à tes parents alors euh, tout de suite nous allons assister au tirage numéro 263 envoyez cash au 24500, vous avez encore le temps avant le tirage. Le 21

Alors, ce sont les 8 bons numéros qu'il fallait trouver pour gagner 10 millions de francs CFA. Euh, le 21, le 3, le 22, le 34, le 9, le 2, le 20 et enfin le numéro 5. Les 8 bons numéros qu'il fallait trouver pour remporter le jackpot 10 millions de francs CFA. Mais on va regarder la table des gains pour vous qui avez joué, qui avez trouvé que trois bons numéros. Je vous rappelle que vous avez une partie gratuite automatique. Avec quatre bons numéros, vous gagnez 500 francs CFA. Avec cinq bons numéros, vous gagnez 2500 francs CFA. À partir de six bons numéros, vous gagnez 50 000 francs CFA. Avec 7 bons numéros, vous remportez 1 million de francs CFA. Millionnaire avec seulement 7 bons numéros. Et maintenant, si vous trouvez les 8 bons numéros, vous êtes le regagnant euh, du jackpot 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA et vous pouvez réaliser énormément de projets avec. Alors, n'hésitez pas à envoyer cash c a CASH au 24 500 euh, pour remporter les 10 millions de francs CFA. Alors jusqu'au 30 août, Inch'Allah, nous sommes euh, en été et Cash Chrono vous accompagne cet été avec plein de cadeaux, euh, plein de cadeaux j'ai dit, plein de lots à gagner. Alors comment vous pouvez faire pour gagner ces lots On regarde la vidéo, on revient. Alors pour jouer à cache Chrono, vous devez tout simplement prendre votre téléphone portable, aller à Nouveau Message, vous tapez Cash C-A-S-H que vous envoyez au 24 500. Ou bien vous choisissez 8 numéros compris entre 1 et 36 séparés toujours par le symbole dièse que vous envoyez par SMS au 24 500. Euh, je vous rappelle que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure de la journée. Euh, le jeu c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si vous voulez gagner bien sur le jackpot 10 millions de francs CFA, n'hésitez pas à jouer à Cash Chrono, même si nous ne sommes pas en direct avec vous, euh, pour tenter de remporter 10 millions de francs CFA. Alors, je vous rappelle que plus vous envoyez des SMS, plus vous... Plus vous... Plus vous... Alors plus vous, euh, tout simplement, vous avez la chance de gagner 10 euh, millions de francs CFA. Alors 10 millions de francs CFA, je vous rappelle que c'est le montant que vous pouvez remporter en envoyant cash 24 24500 cash 24 24500. Nous avons un tirage chaque 5 minutes, donc vous pouvez tenter votre chance pour remporter cette très belle somme de 10 millions de francs CFA. Alors, euh, vous qui venez de nous rejoindre, vous voulez gagner 10 millions de francs CFA, en plus de ces 10 millions de francs CFA, je vous dis qu'on vous accompagne jusqu'au 30 août. Vous pouvez jouer à Cash Chrono et avoir la chance de faire partie de notre tirage au sort afin de remporter tout ce qu'il y a là comme cadeau. Nous avons un téléviseur LED, écran plat. Nous avons une tablette, donc euh, dernier euh, cri. Euh, nous avons aussi

tàq yu ñu war a daaj ci paquet ñoo war a yegg si euh, ñu war ci ànd ak yéen sénégalais yéen ñi nga xamante ne euh, bëggu leen keneen nag ku dul télévision Futurs média euh, moo tax pour delloo leen loolu noonu ñu daal di tànnaat ñeenti chaînes yoo xam ne daf leen di gunge chaînes yooyu nag ku ko ci bëgg am il faut nga am décodeur bi au TFM ànd ak parabolam alors yow mi nga xamante ne da ko bëgg te bañ mu dikkee la zéro franc da ngay jël sa téléphone portable nga dem nouveau message nga tapé CASH au 24 500 nee naa leen chaîne animatrice qui a ngeen bëgg yëpp dinañ fa nekk euh, pour bégal leen euh, émission yu baax yëpp euh, ñu ngi ci liggéey pour bégal leen donc yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg bu paree bu bu loolu yëpp ngeen jël seen décodeur OLED TFM seen biir kër da ngeen nous jël seen téléphone portable yóon tapé cash au 24 500 alors nous sommes arrivés au tirage numéro 264 tout de suite le résultat

Alors, les huit bons numéros sortis gagnants de ce tirage, le 14, le 16, le 10, le 1, le 7, le 28, le 31 et enfin le numéro 35. amuñu xoolal doon ah xool leen ci seen téléphone portable pour xam ñaata numéro yu baax ngeen daal di trouver amuñu ci ànd également ak suñu table bi nga Tafa bu dee pare na ñu daal di fàttali waat mbokku téléspectateurs yi ñoom ñi nga xam ne ñoo joué léegi bëgg xam ñaata la ñu en direct da nga jàpp ne bu dee jur numéro yu baax la daal di trouver. ci tirage ba di ñëw te doo fay dara ah, bu fekkee ñeent numéro yu baax nga trouvé gañe nga téeméeri dërëm ah, bu fekkee juróomi numéro yu baax na nga daal di trouvé gañe nga juróomi téeméer ak ah, juróom benn numéro yu baax boo ko trouvé gañe nga li nga xam ne muy fukki junni ci suñuy koppar bu fekkee nag juróom ñaari numéro yu baax nga daal di trouvé

yenn ay waxal yeen yi nga xamantene ngeen bëggoo ñu fee sa pari daal di dem ci restaurant yu baax yi dem ci li nga xamantene mooy ci champ yi doxoon photo wu am bëgg naa dëkk boobu trop demaguma fa mais bëgg naa tey ci moom possibilité jouer dama jouer gagné ko ndax bii bi cher na lool lool lool wax naa leen ko sànq ak jamono ji amul li toll ni millions doo tukki fele ci Paris euh, donc yow mi nga xamantene da nga bëgg dem tukki euh, dem découvrir hein, rien que pour découvrir sax fa ba euh, da ngay jël sa téléphone portable dem nouveau message nga tapé cash c H nga yonne ko au 24 500 xool leen ci téléphone bu ndaw bi niñ ko s h ngay def yonne ko au 24 500 Ah, boo ko defee nee naa la di nga bokk ci tirage au sort bi mën a gagné li nga xam ne mooy billet d' avion Dakar Paris daka dem fële ca Paris ah, man xam naa ne nag ku képp ku ci ne nag képp kuy seetaan sa xel ngi ci billet d' avion bi du man rek de du Tafa rek du Assane rek. yéen ñiy seetaan euh, bëgg ngeen daje li nga xam ne mooy billet d'avion bi waaye li leen koy may nee naa leen euh, mooy cash au 24 500 bu ngeen ko defee euh, seen wërsëg mën na cee nekk ngeen gagné li nga xam ne mooy billet d'avion Dakar Paris Dakar da ngay jël sa téléphone portable rek da nga koy gëm rek de daal di dem jël sa téléphone portable léegi léegi yaa ngi hésité ndax mu ngi tege sa wet këf ko siifal téléphone bi dem nouveau message tapé cash CASH nga yónnee ko au 24 500 CASH nga yónnee ko au 24 500 euh, nee naa la en plus de 10 millions de francs CFA euh, di nga mën a gagné li nga xamante ne mooy billet d'avion bi euh, dem fële ca Paris ñëwaat. ñu ngi ci été nag gars yi dañuy féexlu yéen ñi nga xamante ne juróom-ñett numéro yi moo leen gën a lay loolu itam mën naa ne. bu ngeen toogee nekk ci di ay am ay projet ko réaliser ku ci nekk na un numéro ba mu mat ñett numéro ngeen ko au 24 500 bi nag bu ngeen fàtte ci diggante benn ba fanweer la ah, bu numéro bu ci ne ak symbole numéro au 24 500 ndax ngeen a 10 millions de francs CFA tout de suite le tirage numéro 265.

et enfin le numéro 7 mon école numéro 8 baax yi tirage 265 le 15 le 1 le 5 le 9 le 32 le 3 le 4 et enfin le numéro 7 mais spécialement pour yéen nga poursuivre parce que nous sommes arrivés au terme de notre jeu en direct mais nous continuons de jouer euh, parce que Fatou a c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 T'as le numéro 1 t'as le numéro 7 génn le numéro

bonsoir à toutes, bonsoir à tous. السلام عليكم يا مكي Thank you.